defal un fular normal mais pas comme fular yi mais defal suis len fulaar en tout cas nee nañ suñu l'école, ci école bi nañ mais bu ñu dañuy dindi fulaar bi def sen benen mom problème ni mu ko maintenant metti na parce que xalé la té xamul lolu jàng la xam mu tok pendant xama quelques jours jàngul amna lu mu ko def mais lépp mu ngi suñu gannaaw léegi. non non forcé wu ñu ko man xam nga man muuru man forcé wu ma depuis ma amee 10 ans la commencé di muuru après sœur bi gis ko muy muuru moom tam mu topp ko di muuru mais ñun forcé wu ñu ko ko. non non ñun bëgguñu indi problème ci école parce que ñun dañuy ñëw ñoom ñu jël seen engagement jël suñu doom depuis sixième fu xale di jàng depuis sixième kenn mësu ko terewee euh, voile donc ñun dañuy jàpp ne rek ñoom ñoo leen war a jàngal bañ pare seen cycle loolu moo tax ñu inscrit non xalaatuñu ko xalaatuñu ko xalaatuñu ne duñ ko dugal fi génne fii dugal ko beneen école parce que fii lay jàngee te classe bi mu def dafa sensible moo tax mënuñu ko génne moom terminal lay def